man dama am déception dama am gàcce bu rëy parce que jàpp naa ni keroog le 3 juillet discours bu rëy ba le président son excellence wax mu nekk ko man gor laa man sum xase ba wax sama wax du mu delloo ginnaaw dama am code d'honneur nee man di à partir d'aujourd'hui j'ai renoncé ma candidature du mu nekk candidat élection yi 2024 di ñëw mais nekk nag dinaa yaatal mënoon naa xëy tànn candidat waaye nag donte am naa toutes les mandats du parti coalition mais dinaa def ay privilégié ay discussion ñu waxtaan ba dëggoo ba trouver candidat de euh, consensus ba yàlla def candidat bi tombee ci loxo Amadou mon grand comité d'état le premier ministre Amadou baax yàlla def boobu ba tey depuis Macky Sall bu mu ne yow yaay suma candidat lépp lu ko métti woon ak lu ko neexoon daf ko dëj toog ci di wax ak ñëpp malgré que attaque ñu ko doon attaque mooy temps yi mu génn gouvernement ñu ko doon attaqué gudde bëccëg tey ñoo nekk ci wetam mais teewul ne dafa ne homme d'état la da nga am esprit de dépensement mu doxal loolu di uuf ñëpp def ko njaboot président am naa sens parce que peut être tournée Casamance bi rek laa demul mais feneen fu mu dem ci tournée ànd nañ en tant que jeune à chaque fois fu nekk ànd naa moom tournée économique muy def mais fu mu dem dafa naan lépp lu fu Macky président Macky Sall defoon su mu ci yokkul du mu wàññi parce que man kat waaye tamit. si ndigalu Macky Sall laa nekk candidat kon lépp lu parti bi lu coalition bi tënkoon benn bokk yaakaar man su ma yokkul dara du ci wàññi képp ku fi nekkoon responsable la yow laay maintenir parce que damaa jàpp ne Macky laa fi nekkal kon man awma dara sañu ma def fi dara wala dindi dara kon suñ demee ba tey ba ba tey ñuy liggéey mu yërëm ko loolu ku gis xam na ne sonn na keroog fii la ñu jógee dawal oto ci ba Gàmbi jaar yoonu kanam def Koupentoum euh, Tambacounda jógee foofu bët Kaolack jóge Kaolack dem Saalum fu ne ñu dem fa sa waay ba 4 heures matin Amadou Ba mu ngi recevoir le premier Amadou Ba du nelaw suñu gëj génnee 9 heures ci matin balaa muy dugaat fu ñu ne fu ñu dal ay 4 heures matin te benn yoon lay lekk bu xasee ba génne ba dëkk pare daj loolu yëpp président Macky Sall nag nekk ci ginnaawam di ko encouragé di ko dooleel di ko jàppale ay quelques groupes samba booy pour privilégier seen intérêt bëgg lënkaloo ak yenn coalition yi pour bugg xajamal élection yi loolu dafi amee la wax commission enquête parlementaire bu ñu teg démb bu ma gisee député na Bokk Yaakaar lu ñu ci ancré man damaa rus damaa am déception damaa bañ damaa jàpp ñu ñun bëggul président Macky Sall képp kuy xel président Macky Sall na repousser élection yi daf ko bëggul parce que lu musul am Sénégal warul amee ci Macky Sall lu mu wax discours bu réew ba le 3 juillet passé ñëpp ndawloo ko tous les yëpp di ko félicité ngallaawaay président Macky Sall xam naan ne du ko def te il fera jamais xëy na menaces yi bëri na charge bëri na kenn ku nekk di wax mais jàpp naa ne incha allahu rabbi les élections aura bel bien au soir du 25 février 2024. tey jii loolu nag damaa bu attiré attention ñu nekk ci gannaaw di xamba di yàq seen pexe du antu incha allahu rabbi Amadou Ba ñu ngi waajal dans son 12 heures dina commencer campagne am te incha allahu rabbi. dina jël réew mi au soir du parce que liggéey na fi kat lu tax ñu war ko jox réew mi su jaaroon yoon bu ñu nekkoon pays bu jaar yoon nga la waay jaru sax ñu campagne si wàllu bilance si fan fànn boo jël Macky Sall lépp fu mu fekkoon fukk def na ko ñaari fukk du côté infrastructure du côté santé du côté éducation du côté bu nekk foo dem ci Sénégal tey macha allah ñu ñëpp ñu ngi am fierté de dëkk Sénégal parce que boo tukkee génnee gi yenn pays Afrique yi da nga naan kat gàcce ngalaam président Macky Sall waaye nag parfois nag fen dina dem ba wër dëgg dëkk bi nag dañ ko waxtee dee gars yi wax nañ fen fen fen fen ba wër dëgg bi ba ñenn ñi sax du ñu sax ñeme défendre le président Macky Sall loolu fu ñu ko teg sa waay dañu xalaatoon am BRT dañu xalaatoon am TER si en 2022 en 2023 loolu kenn xalaatu kon kon nag loolu dañ ko war a suuxal dañ ko war a défendre man message sama morom jeunes yi gën leen ci télé rajo ngeen wax nga xam ne Macky Sall lu fi liggéey kenn benn président mosu ko liggéey su jaaroon yoon jarul muy campagne Amadou Ba dafa toog le 25 février ñu élire ko parce que Macky Sall def na fi ne kenn su ko def te lu mu wax c'est le candidat la continuité rawante nag Amadou tamit ñëw yàlla def na lépp lu Macky Sall defoon si programme yu bëri Amadou moo ko jiite. bu mu nekkee finance moo demoon ci France ba École de Paris 2019 lebi ji xaalis indi bu mu nekkee premier tamit programme yu bëri moom moo ko yëkkali kon nag Amadou nag. c'est le candidat qui rassure c'est le candidat boo xamante ne bu Sénégal yëpp war a porté la le combat pour mu jàll parce que un candidat Sénégal dafa war a dafa war dal gis ngeen ne depuis 2021 ba tey coow li fi nekk kon ñaanuñu yàlla amaat beneen président xamante ne indi ay fitna ku mel ni Amadou Ba qui va rassurer tout le monde qui va parler tout le monde kon kooku soxla nañ ko pour mu continuer le le projet de son national président Macky Sall ñooñu bëgg ñu Macky Sall te effectivement am na ñu nekk ci ginnaaw di yàq am ñu taxaw assumer responsabilité ne ñoom d'accord ñu ci choix bi ñoom je le salue loolu encouragement loolu loolu dem nañu ku mel ne ñoom Mame Boye Diao ñoom Aly Ngouille ku mel ne ñoom Boun Dionne mais am lu gën a am na ñeneen ñu nekk ci biir waxuñu mais lu ñu def moo gën a garaaw ñu ngi travailler matin midi soir pour Amadou Ba bu am ndam mais à quelle fin yow nga toog ci benn branche di ko scier pour mu pour mu pour mu daanu loolu est-ce que ana ana honnêteté ana ngor ana diine xanaa sax. lu metti métti nit ki da am ngor bu demee ba jëlee si joxe sa kaddu sa kaddu waroo ko dindi feek gisoo leneen li nga xamante ne li méngawul ak li nga sekkoon ak ki nga ko digaalee waaye nag dañu c'est balle perdue Amadou nag yàllaa ko baaxal nit ku sell la te incha allahu rabbi yàlla dina ko sutural yàlla dina ko may ndam te dina gagné ñooñu nag après encore ñooy ñëwaat ci am tamit dinaan ko ñu ma maa doon defaral waaye xam na lépp da kilifa rek mooy ndey ji seex di tëddee njaxanaay lu waay wax ak lu waay def dalay bàyyi rek ci biir waaye nag ñun ndaw ñi on va dénoncer ces gars te dañ taxaw xeex ak ñoom te incha allahu rabbi président Macky sal maa ngi lay ñaan te xam naa ne sax loolu nekkul ci xel lu ñu nekk di ruumaan yi di wax xam naa ko gor nga garmi nga te loo wax doo ci tëgg dara maa ngi lay ñaan waxal ak sénégal yi waxal ak député yi waxal ak ñenn gaa yi xam ne ne ñu def seen complot lobby pour bu saboter réew mi dem ba naan Amadou Ba suñu coalition moom moo ger magistrat yi pour ñu voter ay député benn di ko wax soit disant bu ba naan ko dañu bëgg leeral der bu ñu tëmba suñu candidat loolu c'est faux c'est artificiellement faux il faut que les gens arrêtent de faire la théâtre te incha allahu rabbi ci kattan suñu borom élection dina am incha allahu rabbi